àtte fa nga xam ne it mooy zaanu ko cour par rapport à radiation bi ma ni kon ki nga xam que moo di Me Clédor na ni ils ont des arguments costauds à proposer euh, sur la table N'ir daal di li nga xam ne justement euh, gankal euh, lu nu mel lu mel nag est ce que dina war a possible vu que ni li nga xam que modi cour suprême

il est euh, devant euh, l'histoire moom ki n'a xam ne mooy leader de pastif est-ce que tu jii li n'a xam ne moo di la justice sera faite alors dans ce sens parce que si li n'a xam ne itam xew sa Cour suprême qui euh, koo ko wax jàpp na ni li n'a xam ne moo justice dafa Il n'a li nga xam ne moo di tagatémbe jëm si at n'a nga xam ne itam at woon na ko ki nga xam ne moo Ousmane Sonko donc aujourd'hui il est en train justement de jouer sa dernière carte blanche Mamour fa que un tournant décisif euh, sur l'histoire politique du Sénégal je pense que décision la décision euh, d'appel ça va être une décision je pense que ça fera partie peut-être des moments les plus importants du basculement de la démocratie. Madame, mm. mm. comme j'ai l'habitude de te dire actuellement, nous sommes en train d'assister à une récession démocratique. Binga indi, binga hamne mom moy indi crise de la démocratie, mais si nous suñu verdict bo hamne askan wi mom lañuy xaar teg ko ci million yoon teg ko ci droit dina nek décision bo hamne ne ñun ñëpp dinañ ci ànd euh, dinañ ko rafetlu parce qu'il faut le dire hein je pense que actuellement Ousmane Sonko est en train toujours d'alimenter le débat politique et que nous dem sur des élections ça sa présence dina monnaie indi ay problème yo xamné ñun ñaanuñu ko ci biir réew bi mm. donc ce qui va se passer le jeudi incha ñu ngi koy prêter avec une très grande attention légui nak suma ma ci ginnaw ci euh, procès bi nga xamné mom moom mujjé won mujjee bu xewoon feulé ci cour de cassation suñu gissé taxaway bi nga xamné le parquet général amon nako notamment ki nga xamné mom moy la procureur Amon nañu yaakaar ne que bis boobu noonu Ousmane Sonko dinañ ko delloowaat ay ak ak yelefam hmm. ba mu bokkaat sur les fichiers électoraux hmm. mais tey jii gis nañu ne que le constat n'est pas là moom yëkkati na ay kàddu bi mu yëkkatiwee ay kàddu le pôle d'avocat de Ousmane Sonko yaakaaroon nañ ne que verdict bi nga xam ne moom la ñuy joxe dina nekk verdict boo xam ne dina nekk en faveur euh, ci ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko waaye bi ñuy délibéré gis nañu comment ça s'est passé bu ñuy délibéré gis nañu réaction bi nga xam ne pôle Ousmane Sonko yi euh, wane nañ ko Mm. Bah, à la fin, il a fallu que euh, Maître Clédor Sileri tape sur la table pour savoir exactement quelle décision qui a été rendue. Donc je pense que dina nek mbir euh, top permettre aux internautes de Sénégal 5 TV fi ak ñuy jëm ci parce qu'on a des correspondants yo xamné ñi des choses pour nous wax exactement Yann taxaway la askan wi taxawé fofu et aujourd'hui exactement bonne décision même la juridiction compétente bobu non wara allant sur euh, peut-être la récupération des mm. droits civiques de Ousmane Sonko. Mm, Alors euh, euh, peut-être enjeu sax peut-être mo upp fouf enjeu euh, mm-hmm. yi nga xam ni itam ko fa nga xam ni zone Cour suprême a mm-hmm. noté fii Ousmane Sonko en xam ma xam day bokk à jamais si li nga xam nekk élection yi manam donc nga koy indiwaat si li nga que modi moo euh, liste bi ñeel li nga xam nekk moo ko vote présidentiel atum 2024 waye itam li war na di war meuna mën Ousmane Sonko définitivement peut-être benen beneen président toog peut-être xol exactement nak la ko fas di rétablir li nga xam nekk moo dans ses droits manam euh, Mamour ñi ngi dem ci ay période yu xaw a di siiva période yoo xam itam askan wi xam nañ ko réellement mhm. euh, jëm ci walu wunu mel

Euh, par rapport à Mirmi, surtout aussi koñu Ousmane Sonko euh, di li nga que modi Néma fait que si tout dit l'épaule peut-être aussi nous que verdict euh, parce que wax que Ousmane Sonko. Mhm. justement. waaw effectivement je pense que Ousmane Sonko la mm. famille je pense que aussi donc je pense que taxawaay bi nga xam ne tey jii askan bi war nañ ko taxawee si côté boobu noonu dinañ si bàyyi xel waaye aussi yaa ngi ko doon wax je pense que tey jii dina nekk décision boo xam ne dina am impact sur un nouveau démocratie su démocratie su un nouveau pas vers la démocratie parce qu'actuellement il y a des problèmes yi nga dañ koy remettre en cause les nag yaa ngi que c'est un tournant très décisif concernant nga euh, la page Ousmane Sonko d'accord mun nañ si def ay euh, mais aussi ça suscite de nombreux points d'interrogation sooy xool a dit la wax que Ousmane Sonko dossier yi nga introduit à nos juridictions compétentes vis-à-vis ak état bi amu gain de cause d'un jox exemple Mom moom ak il avait parlé de complot waxoon na entrave à l'administration côté bobu amu si gain de cause mm. Ousmane Sonko amna mbir bo xamné ne mom ak problème diffamation amu gain de cause mm. Ousmane Sonko demna présenté wu né amna ben somme d'argent bo xamné fi mu waroon jaar jaarufa moy affaire 94 milliards yi amu gain de cause Ousmane Sonko ñaata plainte mom la fi déposé tey justice bi ak ñi nga xamné ñom ño nek ci walu boobu nonu joxuñu ko li nga xamné mom moy dëgg donc loolu moy waral tey une certaine partie de la population taxaw nek ñun amuñu yaakaar ne que ci procès bi nga xamné mom lañu wara dem Ousmane Sonko dina ci am gain de cause. Mm. parce que suñu ñëwé ñëwee si la fois dernière euh bi la procureur waxé nek mom il est d'accord au dossier bi nga le pôle d'avocat de Ousmane Sonko tek nañ ko sur la table c'était un dossier très lourd dossier bo xamné il y avait tous les éléments justificatifs pour permettre à Ousmane Sonko d'être ci li nga xamné mom moy les fichiers électoraux légui nak on remet en cause tayji l'attribut l'attribut euh, de la DGE parce que DGE Amna tayji lo xamné ne c'est pas sa compétence lol mo waral tout le temps manan la amul li nga xamné mom moy attribut ak li nga peut-être euh, les directives ak euh, préjonction yoy non yëpp yu koy permettre muy wax diw moo dul ou le keneen moo parce que dès maa ngi la wax euh, loi organique bi nga xamné ne organisé le conseil constitutionnel à son article à ak kan moo élection donc tu dit suñu ñëwee ba DGE taxaw nek du jox fiche fiche parrainage yi euh, ñi ñu nek ci walum pasteur wala waye askan wi ça mm. cause li nga xam mom mm. moy problème mm. donc lolu su ko defee rek fay outrepasser li nga xam mom moy ses compétences là nak je pense que il doit y avoir la part des choses war nañu régulariser exactement mon ci ban wàll mom lañ ko fi tegee ak ci ban wàll mom lañ ko fi soxlawé parce que au moment où ma nga la koy la DG e refuse de donner la liste yi nga peut-être que euh, ñom mom lañuy sur soxla c'est-à-dire que tay ji amna rejet et que rejet bobu non du mom moko ko mais c'est au conseil constitutionnel mon moom war wax diw le bok wala diw donc la DGE a outrepassé li nga xamné mom moy ses prérogatives démb le la wax aussi que la DGE ne doit pas avoir ne doit pas encore une fois elle ne reçoit pas la liste des candidatures DGE mom dañ ko fi seulement pour nous joxe feuille hmm. DGE du moment recevoir li la validité des candidatures hmm. DGE du recevoir la candidature. Hmm. caution suñ koy joxe du les titres de nationalité ce n'est pas au niveau de la DGE donc je pense que c'est un débat il faut que ça soit très clair vis à vis peut être ak Taïdi. ils veulent utiliser les instruments peut être au delà de l'aspect étatique vis à vis avec hmm. cette population là. Hmm. Ou peut être qu'aujourd'hui, aujourd'hui toute personne bi nga que demain tu peux être un leader très important dans la vie politique bi nga xamné euh, mom moy mooy abriter le Sénégal actuellement Seigne Fall alors euh, mu nekk ben analyse bu am solo par rapport ak walu gunu mel donc mi ngi non chers spectateurs imagine euh li nga xamné que modi justement archive la lu moko peut-être Ousmane Sonko donne nek fa nga xam ni it mooy zaanu que Ziguinchor peut-être euh, euh, wonat leen ko un peu par rapport ak yooyu li nga xamne ne que moo image donc archive la euh, mais ce qui se passe là-bas peut-être du ñak ni si daal ki nga xamne ne que moo di Léopold su yemee rek nañ si dik di gëna nu par rapport ak walu wu nu mel je vous rappelle que ba tey yéen seen émission dina xam ne que moo di soir bu tay bi spécialement par rapport ak bobu dañu xam ne que modi di bi nga xamni ni itam dal di war mëna amal digënté amal ki nga xamne ne que moo Sonko ak li nga xamne ne que moo justement euh, yoon ak wàllu yoonal banque da di génne si nga xam nekk moo fichier électoral yi may fatali lu nu mel ne ko daal di amal li nga xam nekk moo jeudi inshallah nga mun na nekk euh, loo xam itam franchement euh, risque yi peut-être entre guillemets est-ce que du énorme les risques peuvent être énormes donc lépp plus si am rek ñuy wo li nga xam nekk moo plus de sérénité et de neutralité si kanamu li nga xam nekk moo di askan wi waaye itam fexé ba ñuy àtte ñu wax li nga xam itam moy droit et que c'est important et que euh, bon bataille aussi les avocats de Sonko qui koy soulever dans le sens que ni

nañ ko loxo na ni fee yi nga xam ni na ko doon toppee si mbiram ak Adji Sarr dafa uteek ak li nga xam ne moo di fee bi nga xam ne itam mujjee ko daal di jàppee di vol de téléphone exactement ma ni kon euh, qu'est-ce que les avocats d'Ousmane Sonko vont euh, peut-être euh, défendre face ak boobu di li nga xam ne moo thèse autant de questions yi nga xam ni itam ñu ko si daal di ni allant dans ce sens en tout cas les plus si mën a am rek jàpp leen itam fu mu toll ñoom maître Kelle dox lii ñoom maître Moussa ba si ñoom maître Bam Cissé ñoom ñëpp ñu ngi daal di préparer nag pour utali fa na xam ni it mooy zanu ko Ziguinchor donte sax waan moom nee na bëgg na rallier li nga xam nekk moo di l'équipe bi na xam ni it mi ngi fii si Dakar daal def liggéey bu am solo ñi daal di fekkee lu nu mel alors en tout cas ñoom jàpp ne ni euh, li ñu yor si table bi gis na lool alors est-ce que dina gën a gis li ñu yore woon si table li nga xam nekk moo di Cour suprême et que malgré l'audition bi jógee. Nous si comprendre nous wala nous ñoo déggoon li nga xam de qui moom la euh, ki juge bi wax. Fallou xam nga dama la wax fani n'est ne que euh, l'état état warul user des forces étatiques pour faire face à cette population. Mm. wala pour liquider un mm. adversaire politique. Mm. mais tey jii bi ñu sur le débat public état bi dafa que c'est côté boobu bon moo waral tey jii mu dem jël les forces de l'état concernant décision bi nga xam ne le jeudi.